qui est arrivé à Ahmad Suzanne Camara ndax c'est juste. bon man du ma yéene kenn wax dëgg laa ne situation yéen li mu nekk moom wax dëgg man yéene wu ma ko. Mhm. parce que jullit laa aussi euh, du ma yéen mais aussi dans la l'espace public dafa am euh, da l'espace public est organisé. Mhm. man mënu ma toog yor sa micro bi di di waxuma la président de la république waxuma kenn mais benn Sénégal ma xam ne kenn xama ko sax ma koy dagal saaga. parce que nit ki soo soo di di di wax ay wax yu ñàkk tegi nit ki soo respecté d' sa bopp. Mhm. da ngay éviter yenn discours yi. c' est vrai si nit ki yow d' abord da ngay xool si sa bopp bu waxuma président. man mhm. waxu président waxuma waxam premier ministre waxuma gouvernement bi waxuma keneen état bi waxuma waxam. Mhm. une personne lambda ka nga xam ne kenn xamu ko. yow soo toogee nga am ak moom problème dafa da war a jomb di tenir yenn discours yi. surtout soo demee ba nga am ay doom. da nga am discours yoo xam da nga ko critiquer mais l'espace public est organisé lii en fait il y a quelques mois de ça lii c'était votre fort non non des propos discourtois non non mais ñun euh, le président Ousmane Sonko mosu fi taxaw saaga Macky Sall le président Diomaye Faye mosu fi taxaw saaga Macky peut-être il émettait un discours radical loolu d'accord on l'assume mhm. est-ce que vous comprenez mais quand lu ñu am discours discours radical quand on respectait la personne la vie de de de l'autre ou bien la vie privée ou bien nit ki mu mel dafa ñuul dafa xees neex na ma neexul loolu ça importe pas mhm. loolu parce que espace public dafa am a yow du ñu xamante wala man a keneen du ñu xamante espace public ay règles yu ko régir règles yooyu dañ koy respecté mu mais yi que ne euh, ngi jàpp nit ñi vous ne pas mieux que que ñoom euh, wala que les autres parce que aussi loolu la ñu doon reproché te il faut ma def benn précision oui euh, Euh, mooy procédure judiciaire boobu wax dëgg yàlla man loolu jarul sax wax mais puisque danga ma posé question dinaa la wax. Mm-hmm. mais c' est le c' est s' est autosaisi. est ce bëggul lu leen neex autosaisi. est ce bëggul lu leen neex autosaisine. est ce bëggul lu leen neex le procureur am na su la gisee yow da nga. violé la est ce bëggul lu leen neex. ji ñu la bi muy nekk de côté daan wax yu mel ni daan raw ko ci fekk. voilà loolu nañ ko xam nga dama lay wax rek xam nga ñun tey jii fii ñaata bokk beneen camp nañ fi convoqué à la gendarmerie ñu déglu leen yow imaginer nga loolu au régime de. Euh, de Macky Sall de Macky Sall loolu amu fi. bu njëkk Macky Sall ku mu convoqué gendarmerie instruction nga jëm. Mhm. loolu amul sax ma dañ tout le monde la rupture la rupture mhm. da lay jàpp ku mu mu war a bàyyi aussi on convoque des responsables démb loolu mooy la justice justice la justice doit être humaine. Mhm. parce que justice dafa war a def humaine pour man nit ki soo nekkee yenn kilifa yi sax d'accord ñu xam sa kii jarul sax ñu ne tey mën na la déglu après bàyyi la nga dem de toute façon suñu la condamné amul fekkee dañ la condamné nga war a tëdd da tëdd mhm. wala nga war a fay xaalis da ngay xaalis